li nga xamantene nak nag mo nek nekk mbass bi di coronavirus nekkoon na nak ap feebar bi nga xamantene nak nag na adina ba tax na nak ñu bari ñu yëngu ci jënd ak ak jaay bi dem na nak bañ ci gisoon nak ap jafé jafé di nak waroon na nag ñu bari nak ñu ci dund nak ap jafé jafé ci walu feebar mbass bi ni ba war na ñi nga xamé nak nag ñoo ci walu wëg yaram bi demoon nañ nak ap digg bi nga xamantene nak dañ ci jaxla won ci jangoro coronavirus bi ni way nak ci ab meeting bi nga xamantene nak nag na nag ñi nga xamné ñoo wërgi yaram bi nag du ko loon def fële ca National Assembly bi bu nekk fële ca Banjul tax nag jëriñ ji dénk nag wàllu gi yaram bi kii di docteur Ahmed Lamine samate moom nag dëggal na ñaari nit ñi nga xamante ne nag dañ bàyyeekoo fële na la ca UK ñu ànduwaale nag jàngoro bi fii ci réew mi ci af yéegin yéen ñii di honorable members si jamono bu may waxaa yéen nii nag ñu ngi am ñaari nit yi nga xamante ne naka dañ am jàngoro coronavirus ñëw fii ci réew mi bàyyi ko fële ca UK si jamono bi nga xamante ne naka lañ ñëw fii ci réew mi niki nag ñu ngi bàyyi ko réew si leen leen jël nag kenn ki mu ngi doon wane li nga xamante ne mooy mandargay feebar ba tax na nag mu wàll keneen ki ñu ngi bàyyi ko nag fële ca UK ñoom ñaar ñi nag bàyyi ko fële ca UK jamono bii nii nag ñu ngi si bërëb bi fajokaay bi wane na nag dinañ gën am nag ab taxawaay ak ab matuwaay waxtu bii nii nag ñu ñëpp ñu ngi dund te nag ñu ngi si anam bu wóor te nag ñu ngi am nag ab taxawaay ki nga xamante ne moom moo nekk directeur public health service docteur Bouba Mandiang moom nag wax na ci jéego yi nga xamante ne nag leen jël si jamono bi nga xam ne nag yaa ngi bàyyeekoo beneen réew di dugg fii ci réew mi UK US Spain Sweden ak yeneen réew képp ki nga xamante ne nag yaa ngi jógee sa réew yu noonu bis boo ñëwee fii ci réew mi nag di nga def li nga xamante ne nag mooy test coronavirus même sax nga àndiwaale lii di PC tes bu wane nag amuloo jàngoro bii waaye nag dinañ la yóbbu dinañ la teg place nag ba fukki fan ak ñeent. pour naka ñu xam nag yow sa wàll wér-gi-yaram ci feebaru coronavirus fan la tolloo dinañ la def nag ab test. waaye bu ñu xamee ne nag am loolu lii di jàngoro bi dinañ la bàyyi nga ñibbi waaye nag su nekkee am nga jàngoro bi dinañ yóbbu si bi nga xamante ne nag la ñuy fajee lii di feebaru coronavirus dinañ la test pour nag xool ndax am loolu li nga xamante ne nag moo naka jàngoro bi nii parce que nag jàngoro bi doon na jàngoro bi nga xamante ne nag dafa teel a wàlleete nga xamante ne nag du ñu jox benn jafe-jafe balaa mooy dem nag ba ñuy àndal jafe-jafe nag ñu teel koy def kii di docteur Mouhamadou Lamine Diété mu nekk nag permanent secrétaire ci jëwriñ ji dénk nag wàllu wër gi yaram bi yi la yëkkatee. niki nag ci weeri maaj atam 2020 cabinet bi nag joxe ne woon nag juróomi téeméeri million dalasi bàyyeekoon nag ci jëwriñ ji amee nag wàllu gi yaram bi ci li nga xamante ne nag moom moo nekkal lii di feebari coronavirus bii nii jéego yi nga xamante ne nag ñu ngi koy yëkkati ci jàngoro coronavirus bii nii jëwriñ ji nga xamante ne moo amee wàllu wérgi yaram bi nekk ci beneen jéego yokkaat na nag lu mu ci ñaar téeméer juróom fukki million koppoor bi nag mu ngi toll si juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti million téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaari junni ak juróom benn téeméer ñeenti tomu juróom ñaar fukk ak benn ñii di World Health Organisation ñoom nag ci ab yibaane yi nga xamante ne nag génne nañ ko ci juróom fukki réew fii ci Afrika bu ñu wanee na nag jàngoro coronavirus bi nag duggul fa waaye ci ab waxtu yi néew lii di jàngoro coronavirus dugg nag ci réewi Afrika ba waral na nag ñu bëri nag amoon ci feebaru coronavirus ñu mun nag téeméeri nit ñàkk ne si seen bakken ñeen fukki nit ñi nga xamante ne nag feebar bi ni laal ne leen jamono bii nii nag jàngoro bi nga xamante ne nag moo dugg nag fii ci réew mi wax ne nag raté waaye nag amagun leeral nag ndax dafay teel a rayé xibaar yi ko ci bal ma fii si Paradise TV Hady Cissé